ndox yëpp di tuuru fu nekk fii ba yoof te muy dëkku Seydina Issa di dëkku Seydina Limaam ndox mu bon boole ko xet bu jéggi dayoo mi jaxasoog ndoxu géej ga sa tefes yu jàmmalaay kàmbareen ak fay tolloo géejawaaye ñaaw na lool suñu sukkandikoo si ñenn si askan wa teg si ñu jàpp ni boobee ndox mi bàyyeekoo si foos yi mën na leen a jural ay jafe-jafe si seen wér gu yaram rawatina xale ya fay sangoo. loo ci wax kay des na gars yi kay jot na sax pour ñu taxaw ci lii daal rafetlu rafetul ci gis-gis daal xam naa boo xoolee xam ne rafetul daal mënoon naa gën a rafet nii daal boo taxawee fii bëgg soxla ndoxu géej wala nga soxla dem ci géej gi moom day wàññeeku complètement parce que booy bu ñëwee di sangu tam xàmmeewun fu affaire yi nekk fu ndox mi nekk ndox bon mi fu ne dañu ñëw di dugg man ma soxlaa ndoxu géej damaa dem ba fële ni mu mel nii dafa rafetul daal rafetul daal xam ngi soxla woon ndoxu géej mais dama mujj dem ba fële parce que boo xoolee canal bi ni mel nii ni mu traversé dugg ci géej gi nii boy di sangu fi heureusement tay boy na école mais buñ ñëwé fi lañuy sango mais dal xamna ni ne na risque mom salté na lool tefes gu sell la won gu set la won mais légui da ngay gis ni branchement yi nga xamanteni clandestin yi nga xamanteni mom lañ def ci euh ki bi réseau bi bu nga xam dugul ci bir geej gi fulayam bi nga xamanteni moy bu onage bi nga xamanteni ma nga da koy séen bu fa na muy sottee ko moom délégué de quartier la sa dëkk wu sell wa Cambérène yéexaayu liggéey yu ONAS sumb te te koo àggale lay ñaawlu. dégg ngeen ko Cambérène li xeex bi mu ci xeex ak ONAS jote bi ñu ci joteeg ONAS ak yëpp ba ONAS jël na ci ay matukaayam sax pour génnee ko gaa moom. mais assainissement bi nga xamante ni moom la ñu commencé te àggul te nu seen pont biir Cambérène nga xamante ni eau pluviale bi nga xamante ni dañu waxoon ni eau pluviale kese moo fiy dugg. léegi ñun population bi ñun suñu bopp ñun ñooy sotti ndox mi ci eau pluviale bi suñuy raxasit wala suñuy foos muy déversé wu ci tefes gi loolu nag boo lu nu naqadi la mais xam na ni bu assainissement bi pare woon eh, kon euh, yooyu yëpp dafay dañ yu bëri yàqu na ci yu bëri yoo xamante ni mi ngi oto yi jaar nañ ci yàqu nañ gi kon ñoom war nañu mën a duggaat ci biir Cambérène xool assainissement bi taxaw ci mais dina wax tey ëllëg suba ngoon boobu ba nëgë ni mënul sotti aussi cri du cœur bi nu am daal mooy loolu. moo ne lu soriwul yooyu yëpp place sës rëkk si VDN 3 bi ñu nga fay amal jamono ji ay liggéey jëm si taral boobee yoon askan way profito di sàkku si kilifa yi ñu boole si yooyee liggéeyee ñu sumb problème canal yi nga xam ne mooy sotti.